bi waaye waa tey na comme ni ngeen ko xamee li nga xamante ne mooy équipe nationale bu Sénégal qualifié na ci li nga xamante mooy final ndax moom la ñu le février 2022 allah ba tax na tey après qualification euh, seen demi-finale bi ñu joué demi-finale ba ñu gagné face équipe bi nga xamante mooy Faso par 3 buts 3 euh, buts à 1 wàcc na équipe bu secteur sud TV wàcc na ci terrain bi dem li nga population yi pour xool li nga moom la di euh, dund mbégte bi nga ñun ñëpp moom la am. maa ngi tudd Famara bu Jabi la fi nga point Jean Paul II la li nga euh, victoire au Sénégal. vive euh, équipe Sénégal vraiment content nañ lool ak victoire bi vraiment joué nañu défendre nañu euh, couleur vraiment am nañ ci yaakaar ci vraiment à partir de quart de finale gis Sénégal na bu baax na bu baax ba demi-finale maintenir na seen. Euh, seen victoire ak seen euh, joueur entraîneur bi tamit conseil yi leen jox euh, joueur yi continuer nañ ko gérer nañ victoire bi bu baax li ma leen conseil si final bi mooy vraiment nañu continuer ci maintenir sen joueur di gérer bu baax sen axe bi ak défense bi ak la théorie. vraiment nous entraîneur bi di leen wax ñu euh, continuer si kii boobu conseil parce que l'équipe bu ñu war a daje final entre Égypte wala Cameroun équipe yu baax lañu équipe yooyu moo daal éliminé Sénégal si ay demi-finale ay quart de finale surtout Égypte euh, vraiment Sénégal nañu sooraale loolu mosuñu am coupe. Sénégal bu ma dalee xam Sénégal ba léegi mosuñu am coupe mais dem nañu ba am équipe bu baax a baax a baax ren te ñu ngi gérer bu baax si si seen équipe bu ñu affolé bu ñu précipité nañu gérer seen équipe final bi incha allah dinañ ko indi lamb au Sénégal. jaajëf. monsieur fàttali ñu tur. Mhm. ah man maa ngi tudd Jarga. waaw Jarga mën nañoo xam lan mooy sa tànk fii nga xamante ne mooy rond-point Jean Paul II bu Ziguinchor. ah sama tànk fii daal mooy kontaan rek parce que lii moom xaaroon nañ ko lu yàgg quoi te xamoon nañ nii nii la koy demee waaw Sénégal dafa di équipe boo xam ne dañoo yor équipe boo xam ne équipe bu mag la mun nañ dem fu ne mun nañ egg fu ne ci football daal wax dëgg yàlla waaw. Ah, tey nag euh, dem dund nañu li nga xamante ne mooy qualification Sénégal en finale euh, samedi incha allah ñu jouer li nga xamante ne mooy finale bi diggante entre Cameroun ak Égypte fu mu nekk ne xamaguñu ban équipe lay doon exactement ñaar équipe muy Cameroun muy Égypte ay équipe yu mag lañu boo amoon tey loo leen di wax euh, ban conseil lay doon. ah man daal conseil bi ma leen di conseil mooy équipe nationale Sénégal daal ah comme ni ñu leen xamee rek nañu football ak dal mun nañu lu ñuy def. ah suñuy football daal bu ñu yàkkam bu ñu am benn pression boo xam ne da leen di tiital parce que ñoom ay gaynde lañ yàgg nañ football ak ay grand équipe dem nañ ci ay ay coupe du monde ay yooni yoon waaw yaakaar naa ni daal final bi moom ñun ñoo koy jël bu soobee la incha allah incha allah waaw waaw. ñu ngi lay jaajëf. incha allah jërëjëf kontaan merci beaucoup. ñu jël ndam li parce que xoolal tey maire pas kenn nelawul ñëpp coupe la ñuy xaar loolu la ñuy ñaanal Sénégal te yàlla na ko jël si jàmm quoi loolu la ñuy ñaanal ñëpp incha allah quoi tey ba fajar amul bay Aliou Cissé nag ñu ngi koy remercier quoi gis ñu depuis mu yor équipe bi mu ngi def loo xamante ne benn kër si musu ko def Aliou Cissé ñun ñu ngi sa ginnaaw ñun ñu ngi sa ginnaaw waaw ñu ngi sa ginnaaw du début à la fin ñuy gërëm l' enfant de Bambali kooku moo jar a gërëm Sadio Mané Nampalys booy Casamance yi si kenn équipe nationale yëpp la ñuy gërëm nag mais ku nekk da nga am foo dëkk ñun Casamance yi ñu ngi si ginnaaw ñëpp Aliou Cissé Sadio Mané Nampalis ñoom Mendy bàyyiñu kenn di début à la fin wala booy fii ñëpp Sénégal. Sénégal. Eh, man Bruno Mané asuma ah, tàng mooy. lu ñu fi indi moom ñëpp xam nañ ko waaw Sénégal moo gagné waaw ñëpp mooy xale mag ñëpp ñu fi indi ñëpp Sénégal moo tax ñëw waaw kon ñu ngi gërëm suñu équipe seen liggéey rafet na mais ñun lu ñu soxla dañuy li coupe bi quoi waaw parce que ñu ñooy première Afrique mais ba léegi coupe mënagul ñëw ah loolu daaru suloo daaw si la parce que ñooy première première Afrique te kumb la gul ñëw léegi é bi lañu soxla Aliou Cissé final bi é teg classement bu baax muy la ñu coupe bi loolu lañu soxla waaw coupe bi mooñu tax a jóg xale yi paa yi mag yëpp coupe bi é tax a jóg Sénégal mooy seule équipe Afrique ba léegi mënuñu jël trophée loolu dafa rusloo léegi ñun coupe bi soxla quoi waaw moom lañu soxla tey moom nga len di jox euh, pour préparation finale bi inshallah allah lan lay parce que xam nañu ni entre Cameroun ak Égypte ben ci équipe yi lay dajal dañaa def ay équipe yu mag la. moy ñi len da ron passé mu dal len quoi finale kenn du ko fubal comprendre nga finale la ngay gagné kon Algérie ñu football finale yëpp gaay do dóor 0 lolu yoon finale la ngay ñew nga déglu équipe bi mu indi ba paré da ko dox ko am comprendre nga ñu ne ñu aligné Sadio Mané Bamba dié ak Ismaïla Sarr ci kaw waaw Gana Gueye moom Gana Gueye ngir yàlla rek dañu ko tégal ban quoi. waaye Gana Gueye gisuma woon nar nañu indil coupe non non léegi fi erreur bu bi nañu bañ dalaat rek comprendre nga waaw. ñu lay jaajëfal. ok merci. ah, ah an am Guinée. Nsena Guinée mbin juwe marché ah, sama tàngoor moo dama kontaan jógee Burkina ñoo seetaan Sénégal ñu gagné léegi lu ñuy waajal mooy final bi jël coupe bi rek mooy desel ñoom lay préparé ami ribana bissau kam Messi coupe par ribana bissau Guinée-Bissau ñëw fii ba fii nga xamante ne mooy Ziguinchor bu fekkee li nga xamante ne mooy finalu Sénégal bi lan nga xam ne moom nga leen di wax ñi nga xamante ne ñooy sénégalais nga xam ne ñoo war nañoo dem jouer final le 6 inchallah amin kuuti Sadio Mané Sadio Mané xam naa ko mun na passe mun na jouer mun na dugal mel ni mi si ginnaaw nga mel ni naada waaw loolu laa am pour wax leen gagné rek. waaw.